mën na mën na na sëkk wax moom amaanal bu baree sax solo yi ñu fàtte ko te wax dëgg yàlla kàddu yi suñ baar ak suñ saaliw mënee su cee teg dara dara dara dara ñu yàlla may dégg ak topp ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa yàlla nu sëriñ bi defar yàlla nu defaru te nangoo toppe ngir defaru ndax finalité bi loolu rek la yii yëpp jëwriñ di jooy ñàkk a defaru bi sëñ Baara wax képp moo ko waral te loolu kenn génnu ci yàlla na defaru ci defaru gu wér yu bari ñu ñu ñu xam ni dañaguñu ci mën caa àgg tëwaguñu seytaane tëwaguñu bakkan tëwaguñu àdduna tëwaguñu dara ay ndaw rekk lan bu nu yéem dara ci suñu bopp ba jàpp ni nañu yooyu daf ñuy gane si saa ne bakkan day ñëw àdduna day ñëw loolu mënta ñàkk ba ñëw waaye bu ñëwee fu mu nuy fekk ndax dinañu fekk ci ginnaaw jàmbaar ju ju ju mag jooju nga xam ne seytaane moom ñemewu ko ndax su suñu fekkee feneen rek moom suñ tubaa rek moo seytaane moom rek la seytaane ragal kon nag boo ko bëggee mucc ngalawaay yi bul génn sëriñ bi soo génnee rek yi yëpp dugg yenn feebar rek la feebaru rëy feebaru bañ ku la wax defal nangam yooyu yëpp sëñ bi seytaane la rek ay tawat la rek yàlla na denc ci ñun ba set wecc ba sëñ Saaliw buy wax doo ko doo gis ni moom la ndax lim lay wax wallaahi nazim mënoo ci génne lenn lu dëgg ci yow lu lay jariñ rek la waaw lu lay jariñ képp la bi bi diw ñëwee di wax wax ji bari ci ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam li muy wax dama leen di laaj ndax xool leen ndax moom am na ci njariñ ñu ne ko rikk waaye de li muy wax lépp de bari na loolu waaye njariñ de bariwu ci mu ni ku ci ëpp njariñ ñu ni ko daa mel ni li muy wax de ñun ñu ci ëpp mu ni comme dem leen jëfe ji ko bu leen ko xool loolu mooy dëgg-dëgg defaru am na koo xamante ni itam daa mës a nekk ci njabootu sëriñ bi ay agresseur dab ko maanaam lottal ko lool sonal ko lool te jamono jiñ koy sonal mi ngi woon ak fetal bi ko sëñ bi yëgee woolu ko ma masawu ko ne ko loola nu mu demee mu nettali ko mu ni ko xanaa danga yónnewul woon gànnaay mu ni ko yoroon naa ko kay waaye booba damaa merul waaw mer agsiwut ci moom sëñ bi ñooñu ñoo defaru ku la wér ni sa noon la jege si la yëgoo ci moom yëgoo ci yow ak mer di sa digg ak moom sëñ bi fii ñun weesu nan loolu maanaam sa mbokku taalibe dalee leer ni sa mbokku taalibe la nga bañ ko doo ko mer da nga koy bañ di ko yéene ay fakkatal yal na yal na yàlla bu mu réussir ci jiite gi mu jiite mbooloo mi sax da gis ku koy wax sëñ bi loolu du defaru du dara kii kii noonam moo ko jékku mu yor fetal nee na sëñ bi dama merutoon maanaam lii tudd baatu mer mer ak naqar daa agsiwut ci moom sëñ bi dindi na ko bu yàgg sëñ bi ne woon ne ko defe woon naa ko de defe woon naa ku sëñ Tuubaa defar noonu lay mel kon nan defaru te nangoo defaru tey xool lan mooy ak defaru nag ñu jàngi ko li sëñ Baara wax léegi du du du lu ñuy sol dañ koy jàng sëñ bi daa bind téere yooyu wax ni melokaan wii da nga war a mel jéego yi na koy def ngir mel melokaan wi soo xëyee bul di teel teel li sëñ Saliou di wax nii léegi sëñ bi da ko da da koo digle nee na bul xëy sax di génn di wut foo dem déedéet xaaral ba am programme door faa dem xam nga kooku wax taxalawaa loolu la bul génn ne suñ bi woo suñ baara lu xew tey luy programme bi fu ñu jëm déedéet da ngay bàyyi ba am programme nee na yitte lu mu far far far far far sa yitte ji jariñ na ko jiitu ci yow te fii wax dëgg yàlla jàng rek mooy yitte yi jàng rek jàng bu baax a baax a baax a baax a baax diggante jàng ngir sëñ Tuubaa ak ñëw daara ngir sëñ Tuubaa ak jub rek a fa xaj ak jub rek ak jubal ñoo fa xaj ñu ngi leen di jégalu di ñaan suñu borom defal ñu tawféex am nañ yaakaar lool ci liggéey bi di dalal xelu jëwriñ ji bu baax a baax a baax a baax dina dina nga àgg te dina àggale barki Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa rek a tax te dama yàgg wax ni bari waa na loo xamante ne ñun munuñu ko wax ndax waxloowuñu ko waaye ñi ngi waat ci Sëñ Tuubaa ni mbooloo mii moom Sëñ Tuubaa teg na ko loxo ba noppi ku fi yàqoo moo fi am waaye maanaam ku fi yàqule moo fi am waaye ku fi yàq mënu fee sax loolu Sëñ Tuubaa garanti na ko ba noppi Sëñ Tuubaa nag garanti am nag li koy téye yaa koy jox moom daa am fulla su la joxee alal pare na ca la koy ñoŋal yaa koy jëf waaye boo xëyee chaque jour nga tuur suy jeexee daal doo doo fa fekkaat sëriñ bi dem na bu yàgg yàgg yàgg kon ñu ngi jégalu waat salaamu aleykum wa rahmatullahi taala